lay la laa lii du yomb de yaakaar naa guy gi bi ma gis grand Lamine Samba guy gi décidé na de décidé na jël na décision mal blessé la ko gars yi jàppe yabe nañ na guy gi léegi nag kon lig taalati nga beneen coow aada am auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jalax almisba karafal maa ngi sant seen sëriñ ndigal kala bu baax a baax a baax di sant sama pap Abdoulaye Diop xaas bu baax a baax a baax di sant kilifa yi ma ñaan ñëpp ku si mel ni saa Touba Ndiaye maa ngi koy sant bu baax sëñ Mor ñoom sëñ Ousmane sama staff sama président écrit di sant tamit sama ménager di sant laafa mu àndal borom CAC waaw maa ngi sant ñëpp waaw maa ngi sant ñëpp waaw ne alhamdulilah ko alhamdulilah demba yu bëre koo xam ne te ji bu muy nekk si làmb boobu yaa ngi jàng wala yaa ngi burale Ibama di ko seetaan muy mbapat dem bay toog moom di bëre ak moom amaana loolu noonu suñu jàmbaarte la daal waaw suñu jàmbaarte mais dégg nañ lu mu wax bu baax. wax. xam naa lu mu wax lépp mu ngi suma nopp mais nag xam na ne Ada xale la ah. man lu mu toll lu mu toll nii jaaxaluma. waaw waaw balaa ma doon xam bu ñu di nga ñu ne xaw ma lan ñu jàppante. jàppante kii dama koy imposer daan ko. dama koy imposer jàpp ko daan ko. toog si kawam. mënu koo bañ. toog si kawam moo xew dama lay daan ba nga dëpp. ron ron mu la dem si ma. koy daan. mais wax yi muy wax ne maanaam nañ leen may juróomi minute. ngeen fëggante koy ku ndax dafa bëgg a xam lu ko xale yi yabe te ci la ko bëgg a wane. waaye yow bis bu àggsi dina ko di nga ñëw di xeex moom boo xeex moom da ngay delluwaat foo jóge man du ma réglé. bu xeex ak man dama koy waaye yow sama grand la quoi <laughs> bu baax a baax mais Ama lu wax ni amul le hmm. hmm, hmm. déedéet man mbër du ma humilier wala mbër du ma imposer amul amul mbër ba mu sa imposer si mënul nekk ma imposer ma daan ko jël bu rëy ah, <laughs> bu baax a baax bu baax seetaan nañ ko bu baax seetaan nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax lan champion la mais amaana man lam ma ma dul dépassé daal man làmb mënu mënu maa dépassé làmb mënumaa loolu guy gi mënumaa dépassé làmb hmm? amaan dama fi ñu teg suñu bët amaan moom mi bu ñu gëmul ne mën nañ ko daan kon jaruñu teg suñu bët foofu te dañoo gëm na incha allah dañ koy daan te dañ koy daan kon guy gi niveau dépassé wu la déggoo ma dañoo gëm ne dañ koy daan te dama koy daan man a Fass damay daan guy gi moo koy daan ci dàq bëree ëpp doole wala gën a doon gëm ak lu nekk si man am xam ne ne xale laa ma koy ëpp doole ñeenti yoon baabu bis ba lu a liggéey da nga koy te ma koy ëpp doole ñeenti yoon te dañuy ma bëreeg moom xeex jàpp ko daan ko ñibbi incha allah si kàttanu suñu borom. ëpp yàlla yàlla may ndam. dégg ku gën a jël ay pain wala fataaya yooyu noonu ku gën a lekk yooyu man nat man laa naturel laa xam. non man athlète laa quoi ku ma gis xam na ne athlète laa aw ma ay lekk aw ma dara. maa ëpp doole fuuf man xale laa yow xale yow mag bokkul. nga ko ëpp mais mais amaana amoon am na am ama sol may wax ak moom mais dina xam ne ne bis bu sambu taxaw dëgër rek xale bu booy bu ndaw bi lay tasantel waaw booy bu ndaw bi lay tasantel amaana jarul sax wax bu bëri waaw li làmb làmb yi wax làmb yi du làmb wax quoi du lamb bi wax déedéet. waaw moom du ne amiin. Ah, ah, déedéet mais ëpp doole gi muy jox di ñaan nag. waaye kii kii fan lay jaar ëpp ma doole. daf maa lekk daf lekk dugub rek mais ëpp ma doole de. da laa njëkk a lekk dugub mais ëpp la doole mukk. mais sànq dana ah. bu baa bu dongalee bu dëngal tànki yi du romb la di nga tal leneen lu dul. Ada Fass waaw lool noonu la am si laamu ji kon lu mu wax dox dëngal tànk yooyu noonu. Hmm. dana xam ne du ko faale sax ba amee prip. dana xam ne lépp dëgg la. ay wax ne kër kër ay micro yi déedéet mu si biir géew la te dañoo mën a biir géew. defee na la tamit ci mobilisation. <laughs> waaw incha allah dañ jàpp dara rek naata essage yi ñoo bëgg lii surtout man Ada Fass mais yow tamit fu ma woo mu leen woo dañ may wisi. lu taxoon aada tamit avant muy bëri. léegi na ko sa wax na ko maanaam mu mel ni guy gi dafa nekkoon adversaire boo xam ne dafa yàgg a nekk da nga ko yàgg di nelewaale lan moo lan moo la motiver pour pour guy gi. non laamu la rek laamu moo ñu boole. ndaxte ku ma mujjee daan daan na ko ñu daanante te ma daan ko loolu moo ñu boole rek ak làmb. ah Zoss moo leen boole. ak làmb quoi xam nga làmb moom tamit reenu ñaami la. Mm-hmm. kenn xamul ma la sama waaj fu muy fu ñuy te xaw ma waaw amaana lii làmb la baa Babacar. balaa ma balaa ngay xam ne lii kii nii làmb ji dama kaa fonk dëgg dëgg. <laughs> ba. ba bis ba damay nanoo sax di entraîné. Hmm? waaw waaw soxla ma dara si làmb loolu entraînement boobu koŋŋ. mais moom daa xeeb li nga di sos parce que moom xëcc boobu da ngaa doole waaye boo néewoo. mais moom noonu la ko sos xëccee mu daanu. ah moom ah noonu la ko daane. ah waaw déggoo ma de ba bis ba. waaw xëcc boobu looloo loolu laa koy xëccee. looloo <laughs> laa koy xëccee dara ma dara ma koy daan. bu mel ni Luc Nicolaï tëgg sa combat defe naa bi sa première fois waaw suñu pap maanaam gars yi di ko ooyee l'homme des événements l'homme ah, loolu dafa leer ndax na suñu papa la mhm. loolu di tamit suñu fierté la dem ba père fekk muy tëgg si laab ñu mujj ñu bëreel ko waaw tamit lu nice la di ko nuyu bu baax nuyu sama manager di nuyu Fallou bu baax ne lamb ji méttiwul di nuyu Momar bu baax a baax lamb ji méttiwul taxaw bi déedéet taxaw bi fat fat la ah, moo amaana loolu mooy lamb ji day yomb si man <laughs> te dama ko gëm te balaa nga xam ne dama ko gëm incha allah bis ba la ji da yomb ci yow. damay war koy war wala force. dama koy war. ah yow sëñ as ah, canaba yow kii fu mu dëkk sax man la ñu àndal. nuyu bu baax ba nuyu si waa canaba ah, yow tamit. di leen nuyu bu baax. waaw ah, bu baax. te gomo de. amaana lépp yàlla la nag waa wa waalo. waa waalo. maa ngi woo bu baax waa waalo. waa Casamance waa Gambie. waa Guinée yow dugg nga ci kër yi guy dugg nga géej waaye di wax gaaw Balla Gaye duggaat cere ba di wax sëñ nan as as as waaw sëñ as ak Ablaye Diop xaas waaw Diop xaas am pap la tamit dugg nga yaa ngi bëgg jaxas ay nit di <laughs> nga ñaanal jàmm waaw di nga ñaan dama ko xam te xaw ma dama ko xam moom te moom xamuma ma ko xam bu baax amaana sëñ as boobu noonu waaw Ablaye Diop xaas kooku sama pap la ma ne jëla làmb ji ma jël ko te dama koy daan ba toog si kawam bu ma ko may loxo nag bu toog si kawam loolu gëm bu nekk si man la waaw ci na solo waaw mhm. léegi kon ñu foo xam ni tey da tudd nit ñu naan jaxase la wax na ci Balla Gaye wax naa ci wax na ci sëñ As sëñ As da koy ñaanal bu bëriwut ak man sëñ As mënuma nekk doomam tey may bëre keneen mu di ko kay kenn ku ne xam ne ni ñaankat bu dee tey sa liggéey la am na yoo xam ngeen ñaan mais bu ñu bëri sa doom sa doom ngay ñaanal kooku bala ngaa jubal sëñ As borom ndigal boobu laala lay wax beneen bi nga naan Ablaye Diop xaas li mu tëjoog man ci nekk waxtaan ceeg man ilaa yow mi dindu ko wax ak yow bu la nee jëlal combat am na fu mu ko teg fi mu ko teg foofu dama ni la ci kàttanu Seydina Mouhamed laa la wax nii bu jour boobaa nga xam ne am na combat bu ma dëngalee ba romb la li nga waxoon lépp di nga ko fàtte nga ne mam man da ngay ma daan ba ma jaaxaan. waa ndax talal talal talal yow talal jour boobaa làmb ja xam xam xam nga xam nga xam nga nit xam nga nit xam nga nit xam nga nit xam nga nit làmb ju sori moo tax làmb ju sori neexut. làmb ju sori neexut. léegi léegi daal li ma doon wax ci côté boobu laay leeral diwa ko jëlloo combat bi loo am na ci droit parce que tamit xam nga man man loolu concerne ma li ma concerne sama diggante moom jàmm lañ seq lañ ma si seq bu ma doon mën fii rek ma koy nuyu amul lenn loo xam seq na ko moom bu la manee tey soutenir loo xam ne li la sëñ Fallou fay na la ko fayat lu jëpp sutur loolu dama ciy sant yàlla parce que tamit lamb dafa métti loo ci am loo ci am rek am yéene naa la ko parce que li nekk ci ginnaaw mbër dafa metti amul lenn loo xam dinaa ci am xol buy li li des mooy sama bopp laay xam sama bopp laa xam keneen koo tudd koo tuddul ñu bàyyi tamit xam lii mooy xaw a indi yenn aas nangam nangam man bu ma la xamoonoon tey ku lay ñaanal tey ma xam ne sa mbokk sax du ma yu ndaw ndawaan parce que du yaag ñoom maag yow la non yàlla tere dépassé naa fu ñu may déstabiliser loho combat dépassé de bul xalaat lu ma wax ci lu ma metti ma xam ni wax na ko ganaa frère am lu ma wax ci lu metti ma xam ni wax na ma ko wuruma ko woon wax waaye du tee li ma jàpp dinaa ko jàpp lu ko neex nag mun na wax falaayam incha allah li ma ñor mooy nañ am dat ci jàmm ak salaam ar bi génn suñu diggante comme que cinq minutes mënul am nañ xool nuñ ko bëree mais bu incha allah bu ar bi siflee bu ma wane bu ma ko wanee ginnaaw dina xam ne mbër wan na ko ginnaaw. kon gars yi Samba defe kon gars yaakaar naa ne daal dégg ngeen wax yi aada wax na guy gi wax na yaa ngi dégg waaw waaw li am suba xaw ma am suba xamu daan ak daanu xaw ma li suba mais li ma li ma li ma li ma mën a ñor moom xam ne am na komba am na combat kii am na combat de te buñ bëree ba pare maa la wax combat bi Luc Nicolaï dina jël xaalis ñun ñaan ñëpp may ñu barki Seexu Tijaan barki Seexu Tijaan Luc Luc dina def na loolu